waaw projet bi moom dafa bokk ci yéene bi nga xam ne moom le président de la république Macky Sall amoon am pour Sénégal yéene bi moo naam daf nañu bëgg na fii ak deux mille vingt cinq sénégalais fu mu nekk xanaa mu mu bañ ko rek mais mun na accéder électricité su ko soxla loolu moo taxoon gouvernement du Sénégal waxtaan ak banque mondiale ñu jaarale ko ci CEDEAO ñu defar projet bi nga xam ne dafa concerner Sénégal Mali Mauritanie ak Niger ñu tuddee ko maanaam projet BEST pour ñun nag lu jëm ci suñu wàll war ñun waa Sénégal président daf ne nañ ko yóbbu pour wàll électrification rurale maanaam gox ak goxaat yi nga xam ne ñoo gën a sori amaguñu courant ñu yóbbul leen si léegi nag bu ñu defee appel d'offre international bi entreprise chinoise bii di TBA gañe ko pour ñaari loo yu njëkk yi ñaari loo yu njëkk yi nag dinañ def juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn dëkk yoo xam ne dinañ leen yóbbul courant ci région de Ziguinchor ci région de Kolda ak ci région Sédhiou mais également dina dem Tambacounda Kaolack ak Ziguinchor maanaam lu ñuy wax rek mooy population yi nga xam ne dañoo amoon yéene bi président wax ñu ne nañ ko def léegi tey jii loolu lañ doon jëmmal ci contrat bi nga xam ne montant bi quarante six milliards de francs CFA la dinañ jox courant lu toll si juróom-ñeen juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaari junne yoo xam ne ay ménage yoo xam ne dinañ am courant loolu buñ ko xaymaa nag toll na si million ak genn wàll nit yoo xam ne amuñu woon courant dinañ tax ñu am courant te si biir xayma boobu noonu nga xam ne def nañ ko ak waa Banque mondiale lu ëpp juróomi téeméeri jigéen dinañ si jot si wàllu courant boobu ndaxte xam ngeen ne courant fu mu dem fekk fa jigéen dina ko dimbale si tâche yi nga xamante ne nii moom la doon liggéey dootuñ mun a sox ba sonn ndaxte machine yu wàll yi dinañ mun a ñëw courant bi dina leen alléger ay tâches ménagères yu bëri yoo xam ne yooyu lañ doon def loolu moo tax tey programme bi am solo bu baax si ñun lu may fàttali nag mooy si ñaari at yi nii ñu jëm Senelec programme yi nga xam ne tëgg na ko te yëpp pare na te bu soobee yàlla bu ci nekk dina ñëw indi Senelec dina électrifier lu toll si mille 4796 localités yoo xam ne si ñaari at yi dinañ ko def damay fàttali rek que président bu muy ñëw en 2012 lu amoon courant si Sénégal yëpp mu ngi toll woon si mille 1648 localités mais ñun waxuma yi ñu def at yi yëpp passé mais ñaari at yi rek dinañ def 4796 localités yoo xam ne dinañ leen jox courant kon yéene boobu président amoon pour wax ne na bëgg na fii ak 2025 sénégalais fu mu nekk mu mun a am courant si loolu lañ taxaw temm pare nag pour yeggali ko pour que yéene boobu mun a sotti ak jàmm